waral seen ndaje bii nii. bon lu ko waral mooy tey di ñoo jow di ñoo si lu ñu continuer woon di def rek mooy euh, ñëw gis nañu ay travaux yu am terrain jaraaf ñu gis ko xamuñu lan la ñu bind suñu kilifa mooy suñu maire di ko demander lan moo xew amuñ ci ay retour ñu relancer ko amuñ ci retour ci lañ bindee woon préfet préfet defoon arrêt provisoire des travaux. léegi ba mu defee arrêt provisoire des travaux ñu constaté depuis bërki démb que ni travaux yi dafa reprendre ci lañ ñëwaatoon ne comme que ñun ay responsable lañ te bëgguñu dugg loo xam ne tey jii du wàcc yoon parce que boobu ba tey ñu ngi ci yoon ci lañ ne nañu delluwaat ci kii nga xam ne moo yor wàllum yoon fii ci Médina waxtaan ak moom bañ ko waxtaanee nag si la ñu avisé nañu woon li ba monsieur monsieur le maire jotoon loolu lettre la woon de suspension provisoire ku xam ne euh, ba préfet xam ne arrêté préfectoral mooy régir mooy moo la préfet war a def si la arrêt wat di wax ni arrêt arrêté bi génn na tey te jox nañ ko maire te notifier nañ ko aussi le collectif waaw di leen di di wax mu mel ni dañu ne euh, ci xibaar yi ñu jot ay gazon moom lañu fa bëgg def yéen bu fekkee ne terrain bi moo leen intéressé ana lan moo tax ngeen war a taxaw ne loolu du fi amee voilà di wax ni tey jii nii ñun ñii kenn bañul terrain synthétique mais dañoo xool ni délibération bi waroon tënk loolu délibération bi baaxul ñu xool contrat bi parce que délibération bi dañoo ne autorisation est donnée maire pour la signature avec un promoteur pour la pose de gason synthétique xam nga fu ñu ne pose ñu xool si contrat bi gis contrat de location xam nga foofu am na déjà vice de procédure di wax ni tamit comme yàgg nañ ko wax mooy euh, société bi bañ koy créer ak bu muy signer contrat bi dafa am date bi comme moo amee papier papier juridique ak bu muy signer contrat bi contrat bi moo jiitu papier juridique di wax ni tamit euh, xam ni terrain bi tamit dafa nekk ñun bañu ñu mu nekk privé wala bañu ñu ñu kii ko mais si nan nañ ko yëgal Médinois yi Médinois xam ni carrément lii lañ ciy def parce que léppay ñëpp la man defe naa ni patrimoine bu mel noonu balaa ñu ciy def dara war nañ consulter askan wi waxtaan ak ñoom ñu xam ne lii la ñuy def ci terrain bi waaw presque tey soo xoolee ñun Médina ñaari terrain moo la ñu amoon muy terrain déggoo ak terrain boobu jaraaf ñu gis ne terrain déggoo dañ ko dugal si réserve euh, stade Iba Mar yi pour JOJ yi di ñëw léegi mu des fi benn espace muy terrain jaraaf pourquoi ñu war ko privatiser ñun loolu rek la ñuy laaj lu tax tey tey ngeen ñëwoon ci commissariat ana lan moo waraloon ñëw bi fii da ngeen convoqué wala. non ñëwuñu woon ah dañ ñu convoqué wuñu ñun ñëw di artu parce que ay ndaw yu jóg mën nañ def safaan ñun nag comme que ay responsable lañ balaa ñuy def safaan di ñuy dem artu kilifa yëpp parce que dañoo jaar kilifa par kilifa balaa ñuy yegg si si commissaire. parce que képp kuy politique Médina woo nañ la waxtaan ak yow képp koo xam ne tamit dignitaire nga Médina woo nañ la waxtaan ak yow. comme euh, sous bi nga xam ne mooy def contrôle de la légalité recevoir nañ waxtaan nañ ak moom. promoteur bi ci boppam toog nañu waxtaan ak moom kon nag bi moo doon tey dernier recours bi muy tey muy monsieur le préfet euh, monsieur le commissaire euh, ñu saluer tamit ouverture am ak initiative yi mu ci jël notifié ñu ne carrément am na arrêté préfectoral bu génn pour arrêt sus arrêt provisoire des travaux en tant ñu ci xool nan lañ jëm si kanam. bu saafara amul lu ngeen fas yéene defaat. saafara bi mooy nii rek tegu ci yoon rek tegu ci yoon bi lépp lu ñu yoon may. dinañ ko dox ba mu jeex tàkk suñ demee nag ba xam ne Sénégal bii dëkk yoon la wala du dëkku yoon lépp lu ciy xew tamit ñun collectif bi dinañ toogaat xalaat ni lii lañu war a def ñu def ko. mais lan ngeen bi sinon c'est xaalisam te façon bi nee na duñ léegi pour wax ni tey jii nii gis nga tey di ñoo defee naa ni yoon tey suñ taxaw nii dëkku yoon moo tax ñu ñëw taxaw si commissariat de police tey su papier yi taxawoon su papier yi jaaroon yoon. est-ce que tey jii nii tey war war nañ war nañ war nañ fa teg gazon wala waruñu fa teg gazon tey jii bu la ñoom ñuy forcer di teg coûte que coûte gazon est-ce que gazon de synthétique priorité la Médina soo xamee ni ndaw Médina ñu si bëri liggéeyuñu ñu amuñu fu ñu jàpp loolu ñu war ñu imposer gazon synthétique ba ñu ñu ñu defar terrain bi mais tamit nañ ko waxtaan ak askan wi ba askan wi gis si boppam ñu koy soog a defar. mais mais dañu déggoon da ngeen euh, doon préparer pour benn sitting bien sûr loolu bàyyeeguñ ko ba tey dinañu bind à qui def sitting bi de manière pacifique parce que ñun ku ñu gis xam ne tey jii nii ñëwuñu pour ay ñëwuñu pour xuloo mais lépp lu ñu yoon may dinañ ko topp ba mu jeex te si cadre boobu la nar a tënk